di fàttali ko wax ne mbokk yi nga xam ne ñooy ñi mujjee ñëw te abonné ci seen bi mën nañoo abonné ci seen bi tey gën a yaatal vidéo yi ndax ay vidéo yi njariñ kese la te buñ sañoon mboolem doomu aadama yëpp jariñu si di fàttali ak a wax képp koo xam ne da ngaa bëgg a def loolu listixaar tamit dañuy def listixaar à distance foo waaye man a nekk moo xam ci réew wala bitim réew boo jokkoo ñun benn ci ñaari numéro yi rek incha allah rabbi des na la ko defal nam gën a yewene incha allah képp koo xam ne da soxla lu mel ne wàllu ñaan tamit boo jokkoo ñun nag des na la ci dimbale bu baax a baax a baax incha allah rabbi di leen wax ne ñëwaat nañ ak yéen ci seen beneen chakare. muy secret boo xam ne bii mu ngi jëm ci wàllu musulaay di musulaay ko ama solo te jamono ji moom day jamono ju xaw a doy xaw a kiimaane lool ndax lépp lu waay xam ci lu jëm ci wàllu musulaay bul ci taay def ca kam kàttan ndax jamono ju yéeme yéeme la nekk ñu bari ci nit ñi nag boo leen ko waxee ay réer la leen di def waaye ku gis xew-xew yii di xew di xam ne. ku ne war ngaa gëna fagar wat bu baax baax baax ci sa bop wa ñu indi len ben musulaay go xamne ayatul kursi la ñu bi mimi di nak ñu bare bare bare ci nit ñi niñ ko gënoon a xamee ci walu nopp lañ ko gënoon a xam waye nak tay jëmut ci walu nopp ci walu musulaay la jëm te ni ñu koy waxe ci video bi waxin wu leer lay doon wo xamne ne xamne xam ne nga ko bu baax baax defe ko ninyu ñu ko waxe rek inshallah rabbi xawma lan way li di karange di nga am bu baakha baakha baakha baax inshallah di wax ne ayatul kursi yu ngay bind mbooleem mim yi nek ci ayatul kursi ya rek da ngay ubbi mim yëpp mim go ag na ko bi yaatal ko bam yaatu bu yaatu nga jël aaya alquran bi ñuy wax wallahu yaadimuka min annaasi nga def ko ci mi muy aaya boo xam ne nag aaya bu kiimaane kiimaane xam naa jëmmi aaya bee kese rek dinañ ci indi ay jotaay ak i secret yoo xam ne dinañ ko ko jegleel ngir am solo gi am solo am na benn xasida goo xam ni Seexul Xadiim moo ko way تانكيكو والله يحسبكم من الناس حسيدا مغا كوماسي وخا مغا كوماسي وخاني عفيس قاهر جل مانه جميع الاذى والخير اليوم طائع مي قصيده غو ام ام صلو قصيده غو خا نكو دون خاي ديكا جانغ بن يون جي بيس بي رك دوينا سك كارانغي قصيده غو ام ام صلو موميت دي نانتي نيو ان شاء الله وقتو لي نيو تي اي بو تاد بي رك dinañ ci dikk indi leen ci ay leeral yu bare bare bare bare bare ngir am solo gi mu am solo waaw mbokk yi kursi yi boo ko bindee nii miim goo yegg danga koy yaatal ba mu yaatu ba miim yépp mat dafay nga jël ayatul kursi bu nga jël wallahu yaxsimuka minan naas dugal ci benn miim bu àggaati ci beneen miim bindaatu wallahu yaxsimuka ko naas ci beneen miim bu àggee ci beneen mim bind ko ba miim yépp mat boo noppee nga jël xaatima Suleymaan bii ngay gis ci suuf nga bind ko ci suufu miim gi waaw boo koy bind nag li gën ndax lii ñu baree bari ci ñi ma koy liggéeyal ndomba lay doon ndombay kayit yu mag tamit lay doon boo bindee ba yaatal miim gi dugal ci biir wallaahu yaxsimuka mina naas dugal ci biir xaatimu Suleymaan bii ngay jàkkaar lool boo ko bindee nii ba mu yegg nga def ko ndomba goo xam ne ndombal ñetti gaw lay doon ndomba gi nag buñ koy aw ñi ngi ci jiital perkaal am na perkaal bu ni buñ ba mu des ñaari dina am ci margo yi ak ci armeni perkaal bu ni ba mu des perkaal boobu moom lañuy jiital ci ndomba gi aw ko mu nekk ndomba ñetti kaw waaye neen mbokk yi ndomba gi de moom boo ko amee mën naa laa wax ne jërëtut ngay soxla beneen kaaraange moom rek doy na moom boo ko takkee nii mboolem lu mu fekkoon ci yow ci loo xamante ni gàllankoor la yu jóge ci doomu aadama boo takkee ndomba gi ba mu saf ci sa yaram da koy dindi ndomba gi boo ko takkee nag mbooleem rab yoo xamante ni mu ngi woon ci yow tamit da kay dindi mom dal amna solo lol. yene len ko nak. motax ñu def ci video ngir mu gëna a motax bis mu ne rek ñuy wax ne ngeen abonné day partage video yi ndax ñariñ yi kat mënon na yam ci ñun waye nak bëgg lu gëna yaat motax ñu koy gëna yaatal bëgg ñepp jot ci motax ñu koy gëna yaatal mom boko défé ni wut awuko ko ndom ba ñetti gaw di ka tak mom karanga gu ama ama am solo la di wax ne mboolem waaw ya, di wax ne mboolem ko xam di yu bare bare dafa déssé lèr ci sa bop rek niñ koy waxé ñu koy bind ci commentaire yi insha allah rabbi dess na la si indil ay léral bu baaxa baaxa baax wala nga wote ci numéro yi bu dé fekk nga jamono bi ngay wote yalla def ñu am jot boobaa de na ci indi ay leeral bu baax waaye xam nga ak boo nekkee ci liggéey moom jot gi day xaw a manqué lool moo tax ñuy bëgg nit ñi di bindi laaj yi ci commentaire yi bu ko defee mën nañ cee ay leeral bu baax a baax a baax a baax di waxaat ak fàttali bu baax rek mbokk yi nga xam ne ñoo mujjee ñëw koo xam ne abonné koo ci seen bi nga abonné tey gën a yaatal vidéo yi bu baax a baax ndax dañu xam ne vidéo yépp nag vidéo yi njariñ kese la te bëgg nit ñi jariñu si dong nag moo tax ñu koy gën a yaatal di ko partage ak yéen waaw ginnaaw lu baax la moom te lu baax moom day mel ne ab teen boo gas rek teen moom moom boo ko gasee mboolem ndox ma cee ballee ku ci naan rek suñu borom defal na la ab yool ci loola njariñ yu ñu génne képp ku ci jariñu rek yool bañ cee am moo gën a tax ñu koy gën a yaatu dina wax ne xam naa kon tey suñu vidéo tey fii lañ koy yemale di leen sant bu baax ci topp di leen gërëm xam naa ba beneen yoon ñu ñëwaat ci seen beneen secret wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu